li ma ci xam de drogue bi moom waaw ku ko mën a bàyyi daal moo gën waaw ndax euh, baaxul si réew mi baaxul ci askan wi baaxul ci ñi nga xamante noo koy defit waaw loolu daal xam naa ko ci moom drogue daal baaxul daal ku ko mën a bàyyi daal moo gën buñ ko mënoon euh, fexe ba nga xamante yi daal képp koo xamante ni moom yaa ngi koy def nga bàyyi ko daal man ànd naa ci loolu drogue moom baaxul dara. est waaw man mii nag loolu jaaxal na ma lool ndax dëkk bi moom day dugg ci dëkk bu baax sa suñu réew suñu dëkk bi nee nañ moom am na matuwaay yoo xamante ni doy na sëkk ak ni muy duggee ci dëkk bi man loola jaaxal na ma lool waaw. lu ciy saafara. Ah, saafara xanaa daal ku koy def nga ba ko waaw ba pare nag kilifa yi jóg ci ndax loolu daal moom lu am solo la. ñi si war a wax daal nañ si wax rek ba nga xamante ne day mën a saafara bu baax a baax. ah drogue bi moom ni ñu ko gisee mooy wax dëgg yàlla yàq na mën na ne yàq na réew mi quoi parce que moom nekkul loo xam ne nii luy jëmale réew kanam la quoi te na ne bari na fi trop trop trop ñaan daal état rek jël si métuwaayam quoi ba mën a wàññeeku bu baax a baax. gis waaw am na si nag am na si ah bari na si quoi na si trop boo xoolee gars yi jël benn instant mooy dem ba dey da la ñuy tàqalikoo ak seen sago quoi bari na si trop vraiment. ah yee état jël si matuwaayam rek yaa ma gën a xam quoi contrôle yi tamit quoi gars yi parce que am na yoo xam ne gars yi ñoom ñoo koy jël ci seen biir quoi yaakaar naa bu ci gars yi gënee taxaw dana gën a mën a saafara quoi. lan ngay woo sa xale sa mbokk xale yi comme yow. waaw ñu jug góorgóorlu dem liggéey yaa ma gën a xam quoi te état yi tamit jàppale ñu quoi ci procès yi quoi parce que sama morom yëpp gars yi bëgg nañ liggéey mais gis ñu luñ liggéey quoi yaa ma a xam gars yi ñun jug jàppale ñu jox ñu ay procès yoo xam ne nii booy yi daan dem mën si door waar quoi yàlla mën ñu jàppale ñun ñëpp mooy loolu waaw non waaw am na am na ñoo way way way loolu am na mais am na ñoo xam ne xam nga fi ñu fréquenté la quoi fréquentation yi la quoi waaw loolu lépp daal waxtaan la rek yaa ma gën a xam mooy loolu état gën ñu jàppale mooy loolu daal. asalaamaaleykum waaw man la Mbaye Babacar Niass euh, di jaaykatu téléphone accessoire fii poste Médina. lan waaw lu ñu ma loolu nekk na lu baaxul jeune dafa war a jàng euh, liggéey te jéem a topp ci njàngale mag ñi nga xam ne ci lislaam na teg doomu aadama bi c'est parce que xale mooy nekk mag suba. te boo sànkee sa laaf ci bu nga nekkee xale boo nekkee mag mag yi taxawal ci mbedd yi da ngay doon te. loolu mooy problème bi sax ndax drogue bi léegi da ngay dégg ñu na ay 100 francs 200 loo am am drogue loolu moo gën a yàq ndaw yi ndax bu seeroon wala ñu teg ci ay sanction yoo xam ne koy def ñu teg la ay problème kon lu ni mu demee ni du demee quoi. ah état bi jël ci ay matukaayam rek ndax drogue bi fi muy jaar ba dugg Sénégal ñun xamuñu ko xam nga suñu xam agul foofu mais ñoom ñoom seen biir ñoo waral lijjanti drogue fan lay jaar dugg Sénégal wa loolu tax mooy problème bi nag ñi jur seen doom ñoo war a jéem a yar seen i doom ndax xale boo koy yoree da nga ko war a jàngal premier da ko war a jàngal euh, mu jàng nungoo liggéey mais xale yi ci bëri nungu ñoo jàng nungu ñoo liggéey fréquentation bi te da leen di yàq waaw maa ngi eh, sant ñëpp di gërëm ñëpp rek di lancer appel xale yëpp rek ñu jéem a jàngi te nangoo liggéey ndax loolu mooy defar réew ndax réew mi ci eh, loxo xale yi la nekk kon nag xale yo il faut ñuy jàng nangoo liggéey.